da ngay dem jënd caméra jënd micro wër la ni journaliste nga. boobu am na am na xeetu escroquerie. voilà dañuy dugg dañuy dugg am na fu. Mhm. gouvernement bi di dugal seen ay communiquer pour ku war a def point de presse wala conférence de presse. p ah. Mhm. dañuy dañuy dugg APS xool xam fu événement am tey. Mhm. ñoom ñoo fay jiitu ministre ba. <laughs> toog fa ñoo fay jiitu journaliste ah, loolu tam. Euh, et beneen beneen xeetu. escroquerie la nag nañ ko wax waaw c'est vrai parce que doo wax ñeneen ñi te doo wax sa bopp. dëgg la ah nga bokk voilà doo wax ñeneen te doo xam sa bopp milieu yëpp dafa am ay brebis galeuses. Mm-hmm. dans tous les milieux. Mm-hmm. fi mu am daa am duñu wax ne ci ñun amul. ñu ni mel dem nañu Marie-Louise ba loo wax rek. Mm-hmm. ñu ne la taskatu xabaar yi. voilà xam nga lu ñuy bind amul niveau nii pas lu ne nga koy dégg. loolu moo surtout loolu moo yàq der journaliste yi. dëgg la que journaliste bi nga xamante ne dafay xëy. Uh-huh. bàyyi njaboot dem sa kër dem liggéey normalement tey mënuñ ko def def la part des choses ak ki nga xamante ne dafa jug pour juste sa poche. c'est parce que am na ñoo xamante ne quoi qu'on dise jug rek pour am dara. Uh-huh. juguñu pour euh, uh-huh. pour informer juste et vrai. mais dañ fi nekk pour am dara. Ah, s'enrichir mm. am na ñoo xamante c'est des sites fictifs. li ko Ndoye Bane wax da gis liste site yoo xamante ne xamoo fu ñu ne <coughs> mais je pense que solution am na avec euh, nu carte de la presse bu bees bi mm-hmm. bi nga xam ne miin mooy président bi après nag dinañ mën a mm-hmm. assainir bu baax milieu bi parce que voilà suñu milieu bi c'est infecté comme on dit c'est un infecté et je pense que voilà ñoom suñu ñëwee war nañ mën a wut ay solution yoo xamante ne vraiment dinañ mën ñun ñi nga xamante ne pourtant dañu dem jàng métier bi mm-hmm. dañu dem def école user suñu tubé yi ci banc d'école yi pour mën a tey ñu nekk fier d'être journaliste xam nga léegi soo nekkee journaliste gëstu nañ nañ itam dans le monde di nga gis ñoo xam ne ñu ngi ci monde communication. Mhm. defuñu journali euh, journalisme. Mhm. et pourtant qui ont percé. qui sont parmi les meilleurs gis nañ ko loolu mënut a ñàkk si am na ñoo xamante ne ils n'ont pas été à l'école et ils se de bons journalistes. c'est pas parce que tu es à l'école que tu es déontologie mën nga réussir lu nekk. bien merci beaucoup. bala ñuy dégg tourner parenthèse dama toog temps yi passé jaar. Mhm. dafa euh, ci palanteer bi la jaar. Mhm. xam ngeen da ngeen dafa am ñuy ci palanteer waaw dafa am ñoo xam ci ci ci palanteer bi la jaar. <laughs> ba Sénégal yi accepté ni journaliste mu mhm. mu toog mu ni benn homme politique bu mag. yow ngeen nekk fii di ngand ngandulu yow sa dossier bi ma yor su ma ko génne woon dootoo jar dara fi ma toog dama am ay chair de poule automatique yoon naa numéro waa moom moom it la ma ko xamal ma envoyé ko ko. fo ma envoyé ko benn photo. ma ragal ànd ma envoyé ko moom moom mi wax loolu di menacer kilifa googu. ma envoyé ko WhatsApp. benn photo ak benn audio. rek toog yow la de yow la. émission bi jeexee mu woo ma ne booy foo jëlee lii. bàyyi leen di toog. Mm-hmm. ci télé di menacer ay kilifa ak di leen mm-hmm. chantage. Mm-hmm. ci yàlla pour lan li nga ko xamal. noonu la la xamale leneen mhm. sa lii yow tam su génnoon dootoo jàpp dara mhm. comme leenee soo ko génnoon dooy baat mhm. donc man na ko bàyyi li yooyu c'est pas bien moom ma wax nga da wax nga man ko defal sa nee nga journaliste nga liggéey liggéeyal sa liggéey journaliste li nga ko xamal intéressé wul askan wax ko ci réew mi jërëjëf Ndoye Bane ah. lii yëpp dafa bokk ci wareef parce que xeetu escroquerie yi ni ñu ko waxee bari na façon waaye escroc moom benn type la rek escroc escroc la ci mm-hmm. àtte bi léegi li ma la bëgg a laaj ah, ñu jamono boo xam ne ña ca gën a bare wax daal mu mel ñoom la ñu gën a fonk moo tax nga def coow def ba escroc bi escroc bi day ñëw ni Eva Tra maa la escroqué mm-hmm. mënoo ci dara demal fu la mm-hmm. te pourtant day dem fu ko neex yenn saa yi du mujj fenn loolu lu koy waral parce que peut-être preuve moo amul mais mais dama lay wax nduy baan su nekkee euh, yëpp dafa taxaw preuve yi ñëw yow comme parce que xam nga comme on dit suñu suñu seqee dara mm. ci ay bind la mm-hmm. parce que yoon aussi kayit la xam mm-hmm. kayit la xam yow su nekkee dafa am ay remise mm-hmm. looy jox nit bindal c'est vrai nga am preuve bi suba su nekkee da nga am euh, benn cas wala mu escroqué la di nga mën a dem prouver yow que kii daf la escroqué rek. Mm-hmm. daf la escroqué du moins comme ça yow yoon dina la dàmpaay di nga am dàmpaay. Mm-hmm. yoon dina dina dina dina ko condamné mais euh, des fois nit mu ne la demal fu la neex xalaat peut-être bras long et tout mais je me dis que man j'ai toujours confiance en la justice de mon pays. Mm-hmm. parce que man gis naa ay cas yoo xamante ne peut-être nit ñoo xam ne dañu foogoon ay borom doole la dañ leen jàp dañ leen tëj. donc justice am na ci dëkk bi. am na si dëkk bi ñu ngi condamné ñu ngi ñu ngi ñu ngi jàpp ay nit ñu ngi leen di condamné. très donc yow tey su la nee demal fu la neex yow demal fu la neex. demal yow nga topp sa dossier nag topp ko nu mu waree mhm. pour mën a am yow li nga xam te ne moom nga ñàkk mhm. nga mën ko am parce que nag dama lay wax ne xam ku ne fan la ñuy jàppee nit yi mhm. man j'ai été temps yi may def euh, xalaas waaw xalaas la ma teel a dama doon bi daan def xalaas avant ah, doon teel a yeewu damay teel a dem tribunal ni ma toogee noonu ci salle d'audience commencé guñu mu am ko xamante tout le temps pourtant mu ngi tribunal ba léegi maa ngi toog benn ay famille xam naa dañu am problème mu toog mu naan kan lu tax ñëwoo sama bureau da nga waroon ñëw sama bureau soo ñëwoon sama bureau peut-être problème bi du agsi fii dama tiit ma tourné ma xool ko. parce que bañ nga am bureau. non mais attends raba genre. raawu tribunaux bi la tribunaux yi la. ma tourné xool ko ma tourné xool ko. mu xoolaat mu xool ma ba suñu biir bët. Uh-huh. mu continuer di wax. Uh-huh. maanaam tribunal bu ñëw rek wax ak ñëpp ñii duñu greffier ñii duñu kile non non surtout ça. parce su amee problème day jaaxle. Uh-huh. ku ko dalal rek lay xaar nit su amee problème day parce que problème dafa diis surtout ñu jàpp sa mbokk. jàpp sa jëkkër jàpp sa rakk wala jàpp sa kenn. dëgg la ak kay dëgg amoo repère xamoo da ngay ñëw rek dugg ci tribunal am na ñoo xamante ne ñooñu la ñuy xaar pour mën a nekk ay rabatteur lañ. waaw dañ fay yàgg ba xam lu. xam nañu lépp xam nañu lépp xam nañu lépp. ñu ngi police ñu ngi fépp dugg su dugg dugg lu bureau juge bi ne kii juge bi mu ngi nii xam naa ko dugg nee na juge bi nee na nga jox ko lii fekk juge bi yëgul waay waay juge juge nga bi yëgul nee na jox ko lii <laughs> yàq deru juge yi juge bee laajte te fekk juge bi yëgul oh. encaissé nga kii ñëw peut-être ñu bàyyi ko mu ne ah man maa def intervention loolu dafa bëri ci tribunal soo moytu mu encaissé ñaari temps yëpp ñoo xamante ne ils se font passer pour des juges pour des te dañuy xam affaire yi dañuy xam yoon article yëpp <laughs> loolu doy na waar voilà donc très bien mami mami li ngeen ñu bàyyi may li mari lu sax daf may saf paa bi doon jaay garabu sàcc yi nee na gàddu saagam duy ko ba mu fees ak fasan ah. dugg ko la baan ne day jaay garabu sàcc garabu sàcc yaa ngi nii boo ko yoree kenn du la sàcc ndaxaw di ko wax ñu sàcc téléphone <laughs> man ko man ko lii nag lii nag mooy fas nag xam nga ñi ñi ngi wax ci ci escroquerie mais mm-hmm. man damay toog léeg-léeg di ci xalaat bi nga ko yëkkatee ba léegi fan la amul mm-hmm. fan mm-hmm. te foo xalaat rek da nga naan pourtant loolu noonu dundoon nañ ko fi wala gis nañ ko fi mais xam nga dafa am ñoo xamante ne tamit ñi ngi escroquer nit ñi te bàyyiwuñ ci xel Marie Louise d'accord téléthon am ci dëkk bi wala dara xew ci dëkk bi nga toog sa kër di jënd tur yëkkati sa téléphone oh, woote oh. allo ñu ne allo nga ne man la diw présenté wu ñu tagg la nga daan ne joxe naa un million <laughs> wala joxe naa terrain wala joxe naa billet màkka mhm. ñu bind ki mu jëm ci moom moom di dundee yaakaar ñi ngi ko jaarale ci seeni téléphone ñoom jàppee nañ leen ci ñoom tamit ay waxkat mhm. ndax Ndoye Bane dafa toog ci tele bi mhm. téléthon am na wala benn émission am na ma envoyé Ndoye Bane Ndoye Bane daf ma xam ma envoyé ko ci numéro am Ndoye kooku noonu man jox naa ko deux cent mille man la mami Linguère Diop ndoy baan daane ah mami Linguère jox ne deux cent mille man am naa ci tur fekk tur boobu laa doon wut mais maa ngi escroqué parce que li may wax waru na ma ne man du ma ko joxe. te léegi maa ngi ciy am tur parce que ku xëy ku nekk dina ne ah moom de def katu lu baax la. Mm. ndax joxe woon na 200000 ci ma joxe man wóor na koy defee que ne du ma joxe. Mm. ñuy def téléthon nga toog daal di woote daal di ne allo man la diw loolu ngeen di wax noonu kay sama yaram diw na ci wala sama yaram daw na si wala nga sa turu société. Mm-hmm. wala nga tudd dara. nga man foofu noonu joxe million wala joxe naa fa cinq million wala joxe naa fa terrain. Mm-hmm. te mu wóor la ne yow tur bi jàll ci télé bi rek rek rek ngay wut. Mhm. Marie Louise loolu escroquer la wala déet. <laughs> man nag wala mënuma parce que comme on dit je suis pas juriste. mais mhm. ay manœuvre la def. mais reste ci remise xam nga amul dara loo xamante ne jox nañ ko ci. Mhm. tu vois un peu peut-être wax am na ci tour am na ci ay entrée et tout. mais comme on dit escroquerie dafa loo xam ne da def ay manœuvre. a mais am na ci ñoo xam ne. fu ma bëgg a waxee mooy. am na ci ñoo xam ne dama mës a wax benn xale ne ko yow parce que gis naa ne temps yi mig yi am ci dëkk bi yëpp yu ci ëpp ñu la ciy tudd mm-hmm. mu ne ma réew mi da ngay ba am tur mm-hmm. ca yam boo forcé ba am tur loolu lijjanti ji mu lijjanti ko mm-hmm. bokk fexee rek ba bokk ci showbiz mooy na la benn artiste way wala fréquenteel nit bu siiw mooy manœuvre bi kii wax maanaam maanaam kooku noonu escroc la mais tey jii ñi koy déglu maanaam tur woowu noonu su ko amee ba pare ci lay nekk escroc parce que escroc mooy xalaate noonu na yoo xam ni ko di nga koy gis. ñiy ubbi ay entreprise <coughs> tudd ko Mami Linguère service. Mm-hmm. Mm. wuti ay secrétaire. Mm-hmm. wuti ay booy ñuy liggéey et tout. naan woo woo ni leen dañ leen wutal bourse Canada. Mm-hmm. woo leen ni leen dama leen di wutal liggéey. woo ñi ni leen dama leen di wutal wutal financement. ngir ñëw déposer ñu. de dossier cent mille mhm. frais de dossier deux cent mille mhm. nga fexe ba am fa deux cent jeunes yu ñëw déposer seen fraude frais de dossier mhm. nga xëy suba ni fees changer bureau dem Kaolack dóor waa Kaolack changer bureau dem Ndar <laughs> loolu genre bureau yooyu noonu dafa bari Dakar torop te ñi ngi ciy jeunesse bi te da ngay wax bay bëgg a dee mënuñu ci dara booy dañuy dajaloo porter plainte du mujj fenn parce que leen di wër wër leen du gis et puis dañuy am ay relation yéen day fois day jéem a dóor li muy dóor te du bàyyi trace. Mhm. comme li ngay wax euh, preuve. Mhm. décharge. ñu ko fii laaj Sénégal tey ji mami mii li may miin miin miin miin miin su ma ko doon lebal cinq cent mille tey ji soo moytu duma ko laaj ci ligne bi pourquoi parce que dañoo miinante donc preuve manque preuve yooyu ñuy mooy tax dafa mel suñu demee tribunal waa ji naan la demal fu la neex parce que amul dara loo xam ni amul preuve amul amul témoin amul témoin très bien mhm. maa ngi ko fi doon wax keroog amul preuve amul témoin mais itam boo demee ca tribunal ba ña lay déglu dinañu xam lu yoon ak lu dul yoon jàngee mën nañ xam voilà parce que kii fen ak mm. mais moytul ma nag <laughs> ñu baal ma mais mais moytul ma ala kàcc kat day aay voilà dañuy aay parce que gars yi moom comme on dit fële rëbës dafa am avocat dafa am magistrat dafa am juge parce que balaa ngaa ñëw la la gars yi di sas dañ lay dañ lay yeb mm-hmm. dañ lay yeb dañ lay conseiller donc soo ñëwee da am stratégie de défense boo xamante ne des fois da nara nara nara nar ba. à la fin da ngay brouiller affaire bi mais quoi qu'on dise juge yi c'est des gens yoo xamante ne mais nara nara nara benn yëf bu ndaw ni piccit yàq yëpp. voilà mhm. parce que juge bi des fois da bàyyi ngay wax. mais ci biir mu ngi lay dóor ay question piège yoo xamante ne da ngay dem ba da contre contredire. te am na ci juge yoo xamante ne dañu dañuy yeewu. Mm-hmm. dañuy bàyyi xel looy wax dañuy bàyyi xel. ay sociologue dañuy bàyyi xel looy wax dañuy bàyyi xel donc après nag c'est pour un retour ne la sànq de lii nga waxoon. waaw te déglu bi gën a bi gën doo ma laaj Marie-Louise mm-hmm. miin nga ko foofu miin ngeen ko kay déglu ne tekk newul waaw newul déet waaw waaw ñu ngi lay xool rek waaw newuñu waaw newuñu déet macha allah ñu ngi mm-hmm. nuyu bu baax a baax mm-hmm. euh, sunu frère euh, Yoro Moussa Diallo di nuyu ñoom euh, Racine Thion di nuy ñoom Thiassine nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi ci tribunaux yi ñu ngi lay ñaanal yal na xel bi gën a wér te àtte bi gën a jaar yoon ne yàlla mooy buur moom